sunu weeru kor wa jooy naa naa fi lun koroom na tawba soom na ma jooy si sa yàlla maa ka waaru garaw ga woon mi mbirëy ne leen waaw ay na la xaali way jooyle leen masaana jaay lillaahi ay na laa fardi xaliilillaahi imaam Cerno Ibrahima baabullaahi ayn ala xutbul waraasil jaa'i xalifatil xadiimi doonallaahi ayn ala xarmi rijaalillaahi seyxi siyuuxi xaa'idil ilaahi way ma ne way mal mi ko ñaanal wirdu def ko sëriñ fu muy jëlee ti fardu moo ma mayen fa daaru Abdul Xaadir ci darajaay sëriñ ba Abdul Xaadir dellu ma may musabbi atul asri dellu ma may bi duuna suxti moo ma ko warulan fa daarul muxti ma jooy la see ahmadu awa balla ba foo xewoon te kër maam ajaabani ba xin fi iqataaba kulli bima li xadax رباني خير باق في قتابا كل ورق بما لقد اقتابا لواجب باق ما حن قصد المبيع لنا فرقته وهو كاه والأمن ما قاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم maam Cerno dem na yóbbu far sëriñ daam bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam mamar af muhammadin inna abdillahi xaatimi nabi imaam rasul ah, ñoo ngi nuyu bu baax a baax a baax ah, sëriñ bi te di la siyaare te di la ñaanal jàmm ak ak ak tawféex ak fanu gudd lool te ànd ak wér di la ñaanal li nga xamante ni moom nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba sa maam ak borom daarul muxti ak Cheikh Modou Kara yàlla na ko àggale xam naa wax ji day ndigal sax moo tax ndax mënunoo wax sax ci mbooloo waaye yow sëriñ bi ku ñëw ci yow rek war naa jël kàddu ah, jotale ay kàddu seede daal di koy jëmale ci sa jëmm ji ah, ndax nit nga koo xamante ni nit ku baax nga nit ku ragal yàlla nga nit ku maanu nga waaye nit ku xam sa bopp nga te nit nga koo xamante ni ku la gis xam ni donn nga Cheikh Modou waaw ndax euh, li ñuy wax naan mbër kala jàggiroo waaye képp koo xam ne nee na jàkk sa jëmm ji jërul muy la xam ni liggéey nga ba am ngërëm waaw sonn nga guddi sonn nga bëccëg ngir liggéeyal sa waajur ba làq ngërëmam kon nag lii lépp rek looloo la ko mooy mbàkke ndax biir nañu te wóor ni sëriñ bi gërëm na la te loolu it mbàkke yaa ko liggéey ndax yaakaar naa ku la seen ngay dem du am lenn lu muy laaj xam ni doomi gaynde nga ndax Cheikh Modou Kara sa waajur liggéeyal na Serigne Touba liggéey boo xam ne ba kere buftu di wal du fay liggéey boobu mu liggéeyal nag Serigne bi yow mii mu tuddee la borom daaru nga liggéeyal ko liggéeyit boo xamante ni ba kera buftu di walit du fay moo waral nag mu def la ab jant waa ngay jant boo xamante ni ci biir këram kum neex ak ku mu naqari danga nga koo tiim loola nag lala ko may mooy sa jàmbaar ak bëgg goo ko bëgg Mbàkke ak sonn goo nangoo sonn ci moom ak liggéey goo ko nangoo liggéeyal ndax bëggaloo sa bopp dara bu la neexoon nga mel nu la neex waaye defoo ko da xam ne li nekk ci bitig bi di jaay yaa ko moom waaye danga ngaa teel a am njëg mbake ramas li ne ci bitig bi lépp. alhamdulilah bismillah inna wali yàlla jërëjëf rek jërëjëf a teeti Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gàcce ngalaama maam Thierno Mbacké diiwaan borom daaru saani imam balay sa buri sunu yaakaar àdduna ak àllaaxira Mbacké ñi lay ñaanal. si sa barkeb maam ñu baax ñi macha allah ak barkeb mbootu daarul muxti ak barkeb màggal gi incha allah yàlla na nga yeggale sa lépp te lépp jub te sell biir ak biti te lépp ñoom te ñagu te ànd ak ngërëmal Serigne Touba lu sell yu mer dootul topp te ànd ko ak yow barkeb Cheikh Ousmane Mbacke nooril sëñ Modou Awa Balla màggoog soxna maam Fatim Mbacke ak liggéey bu tedd bi mu liggéeyal Cheikh Modou Kara waaye barkeb Cheikh Ahmadou Kara Mbacke nooril mi nga xam ne moom kott nga yaakaar te ngërëmam képp moom nga xënte ñu ngi ñaan yàlla na sa mbir yëpp jub te mu yegg niw yoon te ñu ànd ko yow te ay cat seexlu la amin ñu ngi leen di ziar bu baax mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di toog fii ci jotaay bi di ziare bu wér wér sunu magu taalibe yi ak sunu baayu taalibe yi waaye di ziar tamit sunu yaayu taalibe yi jëriñ leen tamit yéen ñëpp ñu ngi leen di jox wàccuwaay Cheikh Daour ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggee di rafetlu kàddu yu sell yi nga wax ci sunu yaakaar ji di feddaliwaat sunu kóllëre ak yow nit ku baax nga macha allah bi ñu la jëwrin xaadim caam booleeg sa jëmm ji nuyeeluñu ci mbuur ba tey da nga jàpp kóllëre googu di ko doxal fu sëriñ bi nekk fekk nga ko fa bëgg nañ lool ndax ñu amuñu ku dul jëmm ji ndax ku xam si dul Ahmadul Kara Mbàkke Noreyni mës naa seede si moom ne dañ fa ñëwoon di ko siyaar mun nañu jëmm ji muy maam Cerno imaam waxuma ci moom ngir lu mu nekk sama doom moo tax ndax bu doon damay wax ci moom kon ma wax ci ñu bëri ndax man doom yëngalu ma sëñ Tuubaa rek laa yëg waaye dafa tege ci yoon te yéen ñu ànd ak moom macha allah bu ngeen góorgóorloo dina leen teg ci yoon te sëñ bi ci kum am yaakaar yaakaaram du tas ñu ngi koy ñaanal di ñaanal lépp lu Seydina Ousmane Mbacke nooré ni njaboote ak kilifa dina islam yi ñu baax ñëpp rek ak l'islam yëpp ñun ñëpp yàlla nañ maas ndimbalu sëñ Tuubaa amin ndax ndimbalu sëñ Tuubaa moo na tax a sonn te jàmbaar amul kun dimbale moo am kon yàlla nañu ndimbalu sëñ Tuubaa boole dab ñun ñëpp ñi jiituñu ñu yàlla na leen fa fekk te dëkk ak ñoom ba faw amin ñun ñi fi des mu dëkk ak ba faw amin ak ñuy bëgg ñëw te ñëwagunu di la bëggee Mbàkke fi jëwriñ Mamor daane leen léegi rek falaay tàmbalee kàddu yi ñi ngi sant rek Mbàkke sëñ Mamor bu nu amoon lu ëpp jërëjëf wokku sëñ bi waaye nag amuñ lu ëpp jërëjëf alhamdulilah bi nga xamee ne këram la màggale àndoo ko taalibe yi mbokk ñëpp sëñ bi nag ñaari gërëm yi ku ñaari gërëm yi sëriñ bi am ba tax topp la yëpp am na am na ngërëmu ndeyam am na ngërëmu baayam te bu ci nekk yow mi toog seede nga ko soxna maam Faati yaayam nee na ko jërëjëf sëñ Modou Kara nee na ko jërëjëf kon nag bu ko taalibe yi nee jërëjëf lu war a am waaye muy ko am kóllëre te nit kat ñan la xamee woon boo leen bàyyee ku ñëw war a ragal waaye Mbàkke Balla ñi nga amoon ñëpp téye màggal gi yàlla na ko màggal téeméeri màggal te boo gëstoo rek yem ci ñun ñu suñuy xolo fees suñu wax ci moom mënta bëri ndax nit doo xam ci moom la nga xam ci moom yëpp bëgg koo wax Alaaji Abdou Aziz daa baax mu baax ma dane ko tudd la mu baax la yëpp bu yàggee nga gémmiñ ko kon koo xamal lépp dee ko ñaanal rek te bàyyi ko boromam barkeb sëñ Fall يسر للميسر العسير مختار لي بلا مسير يسر للميسر العسير مختاروا لي بلا مسير ولا اللخين لسوايا مدبرا بما على سهر يدو مدبرا ما تواجه مكاري ليا باغنا باب سكري وهو ليا دفعت سر الجن والأناس بسورة الفلق ثم الناس jaxaltu nafsiya fi saadi samadi walxaa'i wal miimayni min muhammadi wa radiyallahu an ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu abiballahi bal isa cheikhuna ahmadul qadim kaana lahu bi karamihi lbaaqil qadim wasilatina wa maljaina wa qudwatina fi dunia wal oxra noo ngi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci plateforme bii di Mafatihul Bichri TV international ak plateforme yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ fii ci daaru Sani di makaanu Cheikh Ibrahima Fati daaru borom daaru Muxti imam ibnu Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni moom sëñ Ousmane Mbacke Nooré ni ñu tuddee ko Ndaayaan Awa Balla sëñ Modou Awa Balla mel ni xam ngeen ne tey mooy nisfu saxbaan mooy bis bi nga xam ne bi sëriñ bi ñu bisee ci géej gi 1902 dem di signé ji cahier de charge bi ca Ndar ca la woon woon borom Daarul ti Cheikh Ibrahima Faty mi fi desoon ñu dénk ko yoon wi dénk ko njabootug yoon wi dénk ko taalibe yoon wi mu yor leen yorin wu rafet te xat damut yóbbul sëñ Tuubaa njabootam gi yóbbul ko mbooleem lu ko sëñ bi dénkoon keroog ba mu yëg seen ndar nuyoog sëriñ bi sëñ bi di ko laaj mbooleem lu mu ko laaj maam Cerno ne ko mu ngi nii mbooleem ku ko laaj maam Cerno ne ko mu ngi nii ba ci ataaya ji sëñ Tuubaa mujj ataaya Mbàkke Baari Jolof bi muy dem ci géej gi samaani na aja ji ilaa xalil juróom-ñetti at yu manqué keroog borom daaru daa génne kafteer ataaya ba ataaya ji ne ca biir te xuurut yàquwut ku mën a sàmm ataaya ba yàquwut nag rawatina ay nit keroog sëñ bi da ko wax ju daw yaram da koy xool ba yàgg mu ne ko cerno mu ne ko mbàkke mu ne ko xalaas ndaxam moos bu doon maa dem ci bu doon yaa dem ci géej gi dénke ma sang njaboot nii dénke ma yoon wi nii ndax danaa ko mane nii loolu wax naa ne wax ju ko gën a daw yaram gisuma ko man ci kaw suuf te borom daarul muti la ko sëñ ba sëñ tubaa it borom daarul muti képp lañ ma sa dégg mu ne ànd man doy na waaye ànd ak cerno moom ëpp na moom nee na ànd ak man ëlmadu doy na moom mi xetti li ñëpp waaye nee na ànd ak cerno moom ëpp waaye sëñ Omar Diop nee na danoo yéemu ca wax ja waaye sëñ bee leeral wax ja moo ne ko ànd ak man yàlla dana la fay ma fay la rasulullahi fay la waaye ko ànd ak cerno nag cerno da lay fay ba noppi ma door laa fay yonent bi door laa fay yàlla ñëw nag coiffé fay yëpp fay la moo tax ànd ak cerno ëpp na moo tax ndokk bi ñu ànd ak borom daarul moom Mbàkke noo ngi lay nuyu bu baax noo ngi lay siyaare loolu bunt la woon boo xam ne dañ koy ubbee rek ngir feddilee ko suñu kóllëre ak yow waaye bëggee la ko mboolem ko fi teew waxuma sax sa taalibe bopp yi def almu bàyyaa ci say ci say loxo mooy ñi jébbalu ci yow waaye say soppe dañoo ëpp fuuf ñi jébbalu ci yow réew mii ñu ne ak bitim réew ñi fi di ay jullit ak ñi fi du ay jullit ñi la ñi la ci sopp kenn mënu leen a lim mbàkk te la ko waral du dara lu bëgg bëgg sëñ Tuubaa di ko dund dund leer waaye nag bëgg gi ak dund nii buntu kër Cheikh Amadou Kara Mbàkke nóoré nga ci taxaw te bañatee taxaw benn buntu kër buntu kër boobu nga ci taxaw nag moo la may nga am buntu kër yëpp ndax Cheikh Amadou Kara Mbàkke nóoré ni am na buntu kër yëpp kuy dund sëñ Tuubaa bëgg nga xaw ma nag man kuy dund sëñ bi ba noppi di carax leneen man waaye wax naa ne kuy dund sëñ Tuubaa bëgg nga ko damaa wax ne échantillon wu xëbbul xadiimi échantillon wu bëgg sëñ Tuubaa bi ko sëñ bi neeru seet di ko wan nit ñi ci Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni la ko jaar maanaam bëgg sëñ Tuubaa moom buñ la doon laaj échantillon bi ci kaw suuf bul fi jekk di xalaat kenn da ngay sa bopp neel Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni la dundam gépp sëñ bi la ko jox musta wax ci intérêt boppam musta wax ci mbiri boppam yëtteem jépp sëñ Tuubaa la saa bu génnee wax ba ñuy jàpp gémmiñ sëñ Tuubaa lay jubloo leeral ca biir waaye ña xamu tey ña xamu tey jàpp gémmiñ waaye ñi sëñ bi dimbali ñëpp xam nañ ne ku ñu gindi ci sëñ Tuubaa la moom si Amadou Kara Mbacké Noreyni waaye gindi googu ñu ko gindi moom la la gindi yow ba dundoo lu dul moom dundoo ku dul moom bëggoo ku dul moom waaye damaa wax ne ku ko bëgg-bëgg nga borom Daarul Muhti maam Cerno ku ko bëgg bëgg nga sëñ Modou Awa Balla mi ñu ko tudde woon ku ko bëgg bëgg nga sëñ Ousmane Mbacke mi wéjuram ku ko bëgg bëgg nga si Amadou Bam moom si Amadou Kara Mbacke Noreyni yitte jooju nag Mbacke ci nga nekk bu nu ñëwee jàkkaarloog yow du mën a ñàkk ñu laaj la laaj boo xam ne day dugg ci alqadimiya gii nga xam ne damaa jël la cirque diwaanu circul jawahir gi njëkkoon ak isbul xaq ya ci aju yëpp dama ko jëlale dama jëlale bitim réew ak mi ngay wër damaa jëlale am di jàmm ak sopp yi ngay wër ci luñ xewle nga ñëw ngir yàlla akuk bokk ak dundal mbirum cerno loolu dama ko jël waaye dafa alxadimiye mii nga xam ne bi mu sosoo léegi yàggut bi mu sosoo ci diir bu gàtt Cheikh Amadou Cheikh Amadou Muntaka yëkkati ab daamar jox ko Cheikh Amadou Kara Mbacké ngir mel ni lu ko firndeele mel ni lu ko dëggale ba mu cay def raïs yow la ca jiital yow yaa ko ca doy alxadimiye moomu day defar réew lañ wax réew mi muy defar nag mënuta ñàkk waa réew moom mu bëgg sëñ Tuubaa ba noppi nag mu doon la def kon day mel ni dañ koy xeeñtoo ci yow te di bëgg ñëpp di ñëpp ñëpp nga dimbali leen ci tey ci bisu maanaam bisu borom Daarul Muxti bii bisu nis bu saxbaan yaa ngi jàkkaarloog Bichri TV adduna bépp di ko topp day mel loolu moom jërul ma di la ko leeral ndax xam nga ko ndax li ngay génn bari na macha allah Amérique la ne waaye réew mii ñu nekkit mboolem lu ci yëngu ci yoonu murit Bichri TV dana ko yaatal ba ñëpp xam ko Mbàkke noo ngi lay nuyu di la bàyyi ak kaddu gi fu la neex rek tibbeel mbak lo loo nu jox danañ ko yóbbaale te xam ne ne loo nu jox moo gën loo nu joxul mbak bisimilah jërëjëf alhamdulilahi alladi alama al insanu ma lam yaalam summa salaatu wasalaamu ala nabiyihi safihi alalam wa ala alihi wa sahbihi mamila fawqa al arwahi wal awraqi al xalam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddi lisani nabir janaani safi amani wazid baraya cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la ziara di am mbégte lool ci seen teewaay fii ci bërëb bi mm, di sant yàlla di julli ci Mustafa alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba suñu wax jërëjëf Serigne Touba euh, ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko te wéral ko ñaanal ko Cheikh Khalifa Cheikh Ibra Fati Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang ko suñu buntu Serigne Touba Cheikh Mamadou Kara Mbacké Norine ak képp kuy sotti daal te lislaam tax laa jóg euh, ngeen ñëw fi nag ci wax dëgg yàlla ci weeru tedd waaye ci bis bu tedd eh, ci ngoon gu tedd gu mag ndax eh, li tax weer bi tedd mooy weeru Shaaban te weeru Shaaban mooy weeru yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax bu dee Ramadan mooy weeru jullit ñi eh, weeru rajab mooy weeru sunu borom subhaanahu wa taala waaye yonent bi saa salaam moom Shaaban moom da koo jëloon rek def ko nag weeru boppam nag nga xam ni sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha wax na ni weer wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëpp lim daan woor mooy ginnaaw weeru ramadan ndax bu dee ramadan lépp la daan woor waaye bu dee weer wi nga xam ne ci la ëpp lim daan woor euh, mooy weeru chambane euh, ci daan woor ba mujj day foog ni sax lépp lépp lay woor bu ko laajee ni ko yow de weer wi danga fonk loolu di ci woor rek mu ne ko nag weer wi de weer wi nga xam ni ci la ñuy màng jëf yi waaw di ko yóbbu ma bëgg nag man bu ñuy màng samay jëf mu fekk ma ci koor kon weer la am secret bëri ay mbóot Euh, euh, waaye nag ci bis bu tedd itam mooy bis bi nga xam ne mooy nisfu Shaaban te Sëriñ Tuubaa tam wax ni euh, bi muy wax ci bi bind na ci yow ma ne Shaaban yi si ni nafaantani nafaan yafuuqu zanni wa abadan kulli bi ala man ni wax ni sunu borom jëriñ na ko njëriñ loo xam ne daa kawe njottam ba faw rek du den di dotti ay may ak xéwal di ko di ko jóor jox moo tax moom dara wax naan alhamdulilahi li alhamdulilahi lizi li ahsana ihsana man laysa yazaalu muhsina waaw nga am ne nee na ñëpp war a sant waaye man maa ci raw ñu ne ko tax mu ni sunu borom day jël ay xéewal di ma jox te du xama bàyyi waaw moo tax man bu ñëpp dee benn sant benn man fukk laa war a sant waaw muy bis bu tedd boo xamante ni boo ci jëlee rek xeexu bu mag bii ci am muy daje gi mu ci daje Cheikh Ibra Faty borom Daarul Mawti ci ginnaaw ba nga xam ne sëriñ bi dem na ci tukki ba juróom-ñaari at ak lu topp ñibbisi eh, eh, rakam ju baax ja taalibeem ba xaritam ba euh, dajeeg moom ca ndar euh, bis booba ca cofeel gu réy ga fa am ak euh, yërmande ja fa feeñ ak mbég ma fa am ñu di ko màggal di ko fàttaliku ci ndigal Cheikh Mamadou Fadl ndax bu njëkk dem borom daaru lañ daan màggal waaye sëñ Cheikh Mamadou Fadal moo ni sëñ Maodo Balla bis bii nga xam ne ci la dajagoon nag magam ju baax ji ca ginnaaw tukki ba dara gën ko cee yey moo tax ñuy màggal bis bi fii ci Darou Mouhty yeneen nit di fa jógee ci àdduna bi eh, kon loola lu lu mat a lu mat a lu mat a bëggee la ah defee nag maanaam bis balaa nga caa wax da ngay wax eh, kan mooy bis bi kan moo kan kan kan mooy borom bis bi waaw ah, Cheikh eh, borom Darou Mouhty boo dee ko xam ne boo xamee sëñ Tuubaa xam nga borom daaru xam sëñ Tuubaa du lu nit mën a xam sax su suñu borom moo moo dëxañ mbiram lam la dimbalee ci jëmmam lam la dimbalee ci moom ngay mën a xam waaye ah, boo bëggee taarif borom daaru da ngay taarif sëñ Tuubaa rek ndax sëñ Tuubaa borom daaru ci biir sëñ Tuubaa waaw ndax koo xam ne mooy përëgum ndeyjooram kooku yaakaar na isa ataaka adudi kitaab yi fa karimi kitaaba bil mataabi loolu la ko waxoon ndax ne bi mu bindee sama përëgum ndeyjoor mag ñi dañ doon wax naan ah déet përëg la ci jublu wala lu mu ci yow sama loxoom ndeyjoor la ci jublu wala da ciy bëgg a wax yow mi nga xam ni Eh, sama sama sama sama rakk ji bu la sama yow sama yow Ibrahima bu la sama mbindum ndeyjoor mi dikkalee waaye daal jiixi jaax na ci ñoom ba ñu demee ba laaj ko sëñ sëñ bi neen déet sama loxoom ndeyjoor laa ci jublu ndax Ibrahima kat mooy sama përëgum ndeyjoor am na murid bu bëri jël daan ni ah borom daaru bind xaside ñun ko ah, lu tax nga wax ko mu ne ah sëñ Tuubaa neen mooy loxoom ndeyjooram te sëñ bi kat eh, ndeyjoor la daan bindee kon borom daaru mooy ki nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa sàkk woon eh, fekkoon na Cheikh ba di ñaan buru yàlla jàmbaar ju askano ci Mbàkke Balla ci banu Balla kon euh, euh, borom daaru mooy ki nga xam ne mooy listaxaar yoonu murit ndax moom la sëñ Mor Anta Sali euh, radiyallahu anhu waxoon sëñ mag bi ni ko gan gi soxna Faati àndal bu dikkee di góor jàppal ne li nga bëgg ci lislaam di nga ko am sa yitte jure ji xam naa ko ndax ku njaboote xam mun ko sa yitte jure ji ci lislaam xam naa ko waaye jàppal ne bul dem fenn toogal fii soxna Faati daal li mu indi bu dee góor a jàppal moom moom mat na waaw mooy li ma wax léegi moo tax euh, waykat bi naan bis ba mu juddoo ba takku sat waatam ba Cheikh Bamba daw njëkkante koog baayam ba keroog la Mamoor Anta naan Cheikh Bamba sa ñaan ga nangu na ki la yan ki la yor yan ba waaw xam naa ni booy doonee rasulillahi mooy sama Omar ma aliyun billahi euh, mooy li saxaar yoonu murit ndax euh, doy na sëkkër ci taarif borom daaru Cheikh Mamadou Muntaxa mii yàlla fi yàgg te ànd ak wér wax gii mu wax ni sëriñ bi moom ëpp na borom daaru rek na ñu ne Euh, borom daaru mooy ki nga xam ni moom la ñu sëñ bi tegtal ni mu bëgg am murid mel ko moom sëñ mag bi da ko mooy modèle maanaam ni sëñ mag bi bëgg am murid mel ko maanaam noonu la melal borom daaru ba noppi royloo ñu ko joxoñ ñu ko daal di daal ci teg ni borom daaru mooy ki ñu sëñ Tuubaa joxoñ mooy ki nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxoon ni ko yow de ay bëgg ma bu doon paaka la dañ la cee rendi waaw ayyuhal masbuuxu bi xubbinaa loolu loolu wax ju réeréel du wax ju ndaw ndax euh, xool ko ba seppali ne ko nag yow de euh, maa la gënal sa bopp ndax sëñ Moussa Ka way na ko yéem naa ko ngir lu masa man la ko jox maa ko gënal boppam te kum jox du la ñax waaw sa sëriñ xool la ba ne la yow de maa la gënal sa bopp loolu lu jafe-jafe la ci jamono ji sax sa sut waaw loolu nag la la amoon ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa it gërëmoon ko ngërëm loo xam ne dane ko ngërëm la loo xam ne ci yàlla la jóge jaar ci yonent bi alayhi salaam ñëw ci moom sëñ mag bi mu mu jot la ndax da ko bind leetar boobu ni ko mata taxaw aynaka ala hadil xuruf fata yaqan bi anna katibaha radin anka ridan la soxta ba'dahu wa annahu talibun min allahi tabaraka wa taala laka maa yaxbituko fiihi jamiu amsalik mm. fatib nafsan wa xarri aynan wala tashukku fi kawni haza min rabbika bi wasitati wala ala man wakil ni ko saa bu sa bind sa bët bi tegee ci sama mbindum loxo mi mm. na nga xam ne yow Cheikh Ibra Faty gërëm naa la ngërëm loo xam ne mer dootu ci topp ba mukk na nga xam ne nag na sa xel dal na sa xol ni gërif loolu la ko wax ni ko nag da xam ne fàggul naa sa borom loo xam ne ku sa maas ak ëllëg dana la ci ñee waaw ngërëm li nag dañ dama la ko jotteel waaye ci yàlla la jóge jaar ci yonent bi ñëw ci man la nga xam ni lettre boobu wax nañu borom daaru li ci gën a yéeme mooy kenn mosu koo gis ci moom bi mu fi jógee sëñ Abdou Khoudoss nee na ba ñuy seet ay bagages ci la gis ni borom daaru ndax sëñ Tuubaa bi noonu ko wax juree ji nga xool rek war nga cee jàngee kanay borom Euh, am na fu mu nekkoon fu fu kawe kawe kawe waaw mooy ki nga xam ne daal mhm. euh, maanaam sëñ Tuubaa euh, maanaam maanaam maanaam maanaam sunu borom day na mooñ ñoom day daa mooñ mbirum borom daaru ci mbir mbirum sëñ Tuubaa mbirum sëñ borom daaru ci ci ci biir mbirum sëñ Tuubaa mu doon koo xam ni itam jamono yëpp waras na ko cee waaye jamono ji moo ci raw mu doon koo xam ni itam mhm. dénkaan bi nga xam ne sëñ Tuubaa wóoloon na ko ba dénk ko Euh, liggéey ba mu ca liggéey ak rafet ga mu rafet du junñu nga ko léegi euh, ba nga xam ne euh, boo xoolee Cheikh Mamadou Lamine Bara ba itam yu am solo yooyu mu wax ci borom daaru loolu témoin bu ko gën a réew amul waaw te témoin bu ko gën a réew amul tallaahi lawlaahu laa nulqaa zawi adabin walam nakun naxfazu alqurana fi sigari yaa amu yaa cheikhu ibrahimu misluka fi jamci alfadaili laa yulqaa min albashari nee na man maa ngi waat Cheikh Mamadou Lamine Bara nee na ñun njaboot suñ Tuubaa gi bu du toon sunu baay Cheikh Ibra ñun du nu mokkal alxuraan ci sunu ndaw waaye duñ ami teggin loolu ba mutoon kon dara du ko jar loolu la bu du toon sunu baay Ceerno mi du nu mokkal alxuraan ci sunu ndaw waaye du nu ami teggin waaw ni ko nag na nga xam ni yemoo ci doon sama baay waaye sama sëriñ nga xool naa ba xool na waaye sam kem moom nit day sonn di ko wër waaye du ko gis ci ay ngëneel xoolo xoolo yooyu yooyu ataytu ilal mi'ta'i fi daari al mu'ti gi nga xamante ni xes dëggu am maana la Cheikh Mamadou Fadi bind ko ci eh, borom daaru mu'ti tënk ku tënk bi mooy ni ko rek yow de seet naa la yow mi nga xam ni yaay aju joxe ji ci sa dëkk bi nga xam ne moom moom mooy daaru al waaw euh, li tax ma dikk na dara lu dul ngir nga faj njàmbatal njàm njàmbatul ñàkk ji nga nga saafara ko waaw waaw ko nag yaay ki nga xam ne yow sax joxe xooloo ci jamonoy ñàkk wala jamonoy bekkoor ak jamono ju neex yow daal dañ fu ñu la fekk rek yaa ngi joxe daal yàlla taw bu yóor nga boo xam ne daal tabarkàlla wax ni sunu bàyyi Cerno jàngal nanu ba nu ni ar yar na nanu ba nu ni nër ci ki la jàngal yar la kay kooka yaakaar naa ni maanaam maanaam doy na sëkk waaw ah, doy na doy na doy na doy na sëkk kon Cheikh Ibra yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla eh, melal ni sëriñ bi bëgg nu mel ko waaw ah, te ni sëriñ bi bëgg nu mel ko weesuwul maanaam roy borom daaru mooti kon nag maanaam eh, borom daaru mooti géeju xam-xam la woon waaye nag géeju ngëneel la woon goo xam ne mees na ci feey fii ba ñuy wal bortu bi te du jeex ba mukk fii ci daaru mooti eh, da ko waxoon ni ko boo julee suba fetalal jëm penku fa la julli yor yor fekk boo jullee si juróom benn rakkee yor yor ba pare sancal ma fa dëkk te tuddee ko daaru almooti ni ko Cheikh di donateur waaw dëkk bi joxe ji fii nag fii la ñuy séddale te lépp sëñ Tuubaa borom daaru ko ci doy Seydina Ousmane day wax naan ëllëg yomal xiyaam ku fa yor sas watt sax ba la ceerno tibalu du am ku fa sa cere sax su la ñuy wax lu doo doo am ndax lépp borom daaru moo ko ci doy fii ak fële nag waaw loolu moom euh, mooy mooy li wér waaw murid yëpp nag xam ko nag ba noppi nag maanaam jël Cheikh Ibra def ko mu seen modèle def ko seen royukaay fii ku fi ñëw tey kàddu fi dégg rek day mel ni moo moo des genn lay doon ñu di leen sant baax di leen jaajëfal di ñaan Cheikh Mamadou Kara ko fi te wéral ñu see ñàkk a ndax nag ci ba li fu ko neex ngay xool te ñun lu ñu doon Cheikh Mamadou Kara la moom de day koo xamante ne nii Sëñ Tuubaa rek a xam ni mu doon waaw moom kenn xamul lu mu doon Cheikh Ahmadou Kara xamoo ban rang nga koy dugal waaw nee na man Sëñ Tuubaa nangul ku ma xam moo ma ko wax ci làmmiñam ni ma man ku tedd ki moo dëxañ ci man mbër moo xam ne euh, maanaam ku mu ko xamul mën na koo xam waaw ni ma xanaa xamoon ni si la ma waxoon borom daaru ni ko Ceerno sama mbër ci yow laa ko denc mbër moomu man la moom moo ma ko wax ni ma mbër moom ba mu koy wax man la ci jublu woon waaw nee na Sëñ Tuubaa fa ma nekk ca moom kenn nekk fekku ma fa te kenn du ma fekk ñu ne ko ah Mbàkke mu ni waaw ndax du ko nangu moom moo du nangu ma fekk moom sëñ mag bi sëñ Mountakha ne ko yow koo yëg da neex waaye ñëpp war a yëg waaw koo yëg da laa neex waaye ñëpp la war a yëg ko bu ma laaj ndigal sëñ Saliou ne ko bu ma laaj dara ci ndigal lépp loo xool ba sam xel rafetlu ko rek ne ca ta xam ne maa la ca ñaanal tawfeex loola ñoo xam tey bu ñu ko déggoon dootu ñu laaj ndigal waaye tey la gën a yeesal laxasaayam tey la gën a takku tey la gën a soobu te bu doon pouvoiru àdduna yéen fii bu ngeen ñëwee sato bi muy doon day yéeme lool bu doon Cheikh Modou Kara mbirum àdduna ko ñor kenn ko dugg ci këram rek a ñu laa toogal doo toog téeméeri oto ak ñeent fukk maye na ko jox na ko at njaboot sañ Tuubaa gi te benn mosu ko cee jox njabootam waaw au sax ñun oto daamar yi ñu koy jël joxe ko ba noppi ne la del dugg ci oto yi ba kii muy koo xam ci ni bàyyiwul ba ba ndax dund Sëñ Tuubaa ci jekk ko ba noppi nag teg lépp ne di dégg dund sëñ bi loolu jafe na man ngay dund sëñ bi nag muy metti ngay naan sëñ bi waaye nag boo nee ba jekk ko nag ba noppi mën a gore sa diggante ak moom jël lépp delloo ko ah loolu nag moom ndimbalu yàlla leen ndimbalu sëñ bi waaye nag Cheikh Modou Ndayane Awa Balla mu baax ma radiyallahu anhu dañu ko woon cheikh bu mag nga nar a doon waaye boobaa na la ak taalibe rek ñor kon nag loolu li ñu ciy déggee mooy lu waaye mën a am lu mën a doon te ak taalibe lalu ko rek mm. mook zéro yam ni ko samab samp nag mag du ko seppi waxuma laa gone waaw ah, loolu la ko waxoon samab samp mag du ko seppi waxuma laa gone waaw ah. sëñ Abdoulaye ni woon ko lu fi mënta jëlee jumaay sëñ Tuubaa ji mun lu fay jële dama bëgg nga rafet njort te dalal sa xel te xam ne sa mbir lu sotti la sa mbir lu sotti la mbir mu sotti kay mooy loo xam ne sëñ Tuubaa noppi na ci moo tax ñun suñu xel war a dal te lépp lu mu la wax ci jamono addunaa la koy woon boo fi yàggee ta wér di di xool di seetante da nga dem ba sa ba tege ci waaw moo tax waxam neqaree dégg sëñ Tuubaa ni kalaamul awliyaa illa su afhamu di am na nii ana ana wahum parce que maanaam fa muy waxee loolu faw rek sëñ Tuubaa lay dimbale nga nga nga nga mën faa dégge waaw ah. kon nag moom dañuy ñaan mu yàgg fi tànn gër liggéey bi mu ñuy liggéey loo itam du ah, suñu njàmbaar waaw ah, suñu njàmbaar ñëpp ko wax ko wax mu la ah yéen de 31 décembre sëñ bi lim la defal ñëw ba wax ma wax boo xëyee gën a la góorgóor moo tax ñu koo def ak laxasaay fii tamit ab bërëba ah moom ne sant na Serigne Touba ci ci gi waaye ñun dañ koy sant ci ngoon gi te fi ñëwaat fii ak waxtu wala ñaari waxtu ñetti waxtu da nga xam ne fii sant nañ Cheikh Ahmadou Kara ah, ndax fii bërëba ma ñun moomuñu dara al muridu laa yamliku shay'an wa laa yamliku moomu ñu dara suñu lépp sëriñ be waaw suñu lépp ci biiram lañ ko dugal waaw kon nag ñu ngi ñaan mu yàgg fi daan ak wér ah, di sant mbokki taalibe yi nag ak wëllëre yi xarit yi sëñ daawut mi ñu fi teew ñëpp ak sang yi fi teew subaak léegi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi ñëw d leen beral ak cant ndax ñi tamit wax dëgg yàlla yëg euh, bisam rek la te bis Cheikh Ibra Faat bi ñëpp ko bokk nag waaye nag wax dëgg yàlla itam xeebalu ñu ci sunu cër ñu ngi leen di sant di ñu sant mbokki taalibe yi ma bi bàyyi ma bi daam sikóor yi waaw fu ne ci bitim réew boo ñëwee fii mën nga fee génne ku jóge Espagne mën nga fee jóge ku jóge Italie mën nga fee génne ku génne France Kara la rek ak ñu ko ci bu baax a baax te ñaan ñu yàgg koo def ñu yàgg koo màggal ngeen yàgg fee teew ñu yàgg koo ànd Bichri Mafatihul Bichri nag di télé boo xam ne nag yaakaar naa télé murid yi la tele lislaam la waaw bu gaa yu baax yëpp la wéttali waa diaspora bi di wéttali surtout ndax ñu dañuy dem États-Unis di dem Europe di dem Brésil Argentine dëkk yëpp waaye dañ ko fay gis muy ñu def liggéey liggéey bu rafet nag boo xam ne nag moom tuwaarkal la Ah, te nag innal xasanaat yuzhibna sayyi'aat am na siit yoo xamante ni yàlla xam tey ne du ma tooñ waaye nag yéen moom wax dëgg yàlla fi ngeen jaar fu nekk dem naa ni moom bu fa sëriñ bi jaaratoon moom amul leen lu ngeen di soppi ci doxin yàlla yàlla taxaw leen te sàmm leen barke Cheikh Mouhamadou Karam Mbacké salaamun alaa may tabal huda jërëjëf kon mbokk yi ñu doon topp loolu moo nekkoon jataay bi di sant bu baax a baax day mel ni ñun ñi bokkoon nañ ci ñi sëñ bi tànn ci 11 novembre bi 1902 mooy bi muy màggal ñu bokkoon ci ñi doon tënk xasida ak Matlabul Fawzayni lépp yi ci ubbi ubbiteeg alxadimiya loolu tawfeex jooju ñun bokk nañ ci jeunesse bi nga xam ne Cheikh Amadou Kara Mbacké nooré ni dimbalee nañu ko jaare ko ci maam Thierno imam mii nga xamante ni mooy léppam kon Mbacké noo ngi ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Mawti barkeb Seydina Ousmane Mbacké nooré ni borom sikóor yi waaye cërub Daarul Mawti yàlla na yàlla yëkkati mbooleem yitte mu aju ca kaw te bañatee laal suuf alxadime daj pàkk adduna yittey defar ji ak defar réew mi lépp jaare ci loxol ki ko ki ko ki ko xalaat te sëñ bi xalaatal ko waaye jaare ci sa loxo yow mii Mbàkke noo ngi sant tey wax na ku fi teew nga fas ci sa xol sëriñ bi fas ñaan aju yëpp faju fii la ñuy signé fii la ñuy noté fii lañuy ñuy gawee ba mu gaw ñu jox sëñ Tuubaa Cerno yor loola te yow mii kat umpale wuñ ne yaay Cerno Mbàkke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaan ñu baala toog la ñuy jeeg balaan maam Ceerno Jokko baay ba fi riwaaya ñu boole ko la mi jeeg naan balaan ma maam Ceerno Jokko baay ba fi riwaaya ñu daal di jox soxna sa si di Bamba nee leen suñuy nokk dañuy yeneen